li taxoon nag secret bi ba xaw la mm-hmm. bi ma amee problème mm-hmm. saar yëpp a ngi fi waaw waaye suñu borom ci xat samee la ko dugal la ko la ko yóbbu mm-hmm. ni ko moo gën a gaaw nga connecté wu am réseau pour ma dégg la xat samee allah kan lay waxal xanaa xawlata ah xawlat lati tu ko fi zawjiha nga xam ne mi ngi waxtaan ci mbirum mbirum borom këram ndegete kon ku bëgg borom kër mbaa nga bëgg soxna sëñ Xaadim saar bi gën a gaaw wala ki nekk ci am problème ak ak borom moo ci gën a gaaw xam nga saar bi yëpp mi ngi nekk 22 aaya 22 22 moom la doon ku yéesu ko mel ñaari fin yi moom moo ñëwaat rek moom laa la bëgg wax noonu léegi 22 boo leen ñaari deux yi rek amoo 4 40 bi taxaw na <laughs> subhanallah da koo natt di ko natt di ko peese ba mu yem ci képp mu bo mu roof ko fii mm-hmm. gis nga yow mi may seetaan mm-hmm. tey tey soo doon wut benn waay boo xamante nii tey soxla da koo të mm-hmm. demal ci àllaa yi nekk ci biir benn àllaa bu na nga koy ubbi nga jël ñaari tur yi ma la wax bu nexe jeulal 40 rek ben yoon. mo mhm. le ko khadim kan. Mhm. ak walu sawja. Mhm. roof ko ci bir ala nga xol ba ñeen fukki mat. nga def ko saxal ko sonko bala mat nga am jëkkër. te ma nga am soxna. te dina melni la gënal. ba noppi boo ko saxee kar mom mi 480 yi ma la wax. do ñak mukk ci aduna do fi tum rank mukk. te do fi am tolof tolof. ya hadi ya wadud wallahi 480 fois ku ko saxoo mm-hmm. doo ñàkk doo torox te torof torofi adduna yi la dab yàlla ko wax ci téere bi mi ngi nii mm-hmm. boo ne ci mujj da ngay dégg ji mu naa la ala ina isballah mm-hmm. fala ko tëjee xoolal loola ñi féeteeg man waaw fala tëjee saar ba ñi féeteeg man duñu am problème fokk dund at gu neex adduna ba ñu am àjjana xoolal bu tu commencé ci 480 fële. boo dee ca suuf foofee ma lay wax. moom nga fay fekkaat 480 nga fay fekk. kon yaa haadi. yaa wahaabu. ay safla yaa wadoodu. yaa haadi. yaa wadoodu. yaa haadi. yaa wadoodu. ndekete li yéex a jóg affaire baa ngi foofu. ah Moustapha. ndekete li ngeen di kañ ko jëmi lépp. boo gën a gaaw. Ya wudud secret baa ngi ya hadi ya wudud yow bi nga xam yaay orienter sa jam fi gën ci mom ya wudud yow bi nga xam ni kula sop nga sop ko boko sopé soppee ko mbirum sop ma te bëgg ma to orienter ma hadi ya yaa wuduud yaa wuduud yaa haadi yaa waduud yaa haadi yaa waduud haadi mooy suñu borom tabaraka taala moy muhammad rasulullah rasul alaihi salatu wasalaam xoolal hadi moy allah Muhammad, waw moy allah Muhammad, dede amna fu gëna gatt ahmadu kessé ngay jël ahmadou du 53 53 la dindil alif gi mhm. lu ci des 52 ahmadou ahmadou waaw mim gi ngay dindi mim gi mo dess ahadou mo dess ahad ahadou ñaata la 13 13 ak 53 66 <laughs> ahadou moy yalla ahmadou moy mohammed sallallahu alaihi wasallam mim gi nga naa ruseer kep yalla kep dafa ñuul est loolu. mu ngi ci biiram mu deñ waaw Ahmadou. Mm-hmm. rasulullah alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. Ahadu. yàlla borom bi tabaaraka wa taala. Mm-hmm. xoolal loolu. boo demee ci lixlaas da ngay fekk mu la koy junj foofu. xul. huwa. du onze. allah. ahad. 13 yooyu ngay boole mm-hmm. huwa onze la mm-hmm. alaw nekk soixante mm-hmm. at nekk 13 soo leen boolee quatre vingt dix la quatre waaw demal ca basmala nga abu ko baa bañaat la 2 boo boolee lay muy lan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam téwat fofu foofu wala <laughs> bi <laughs>

li moo tax nit di toog fi mu toog di di jariñu nit di dox réew ak réew te te te te mbiram mbiram di demee noonu. dëgg la waaw ndax fekk boobu waa ji daal daal ci secret bi rek. Uh-huh. daal di secret bi rek. ah xam nga li nga leeral ci sóoratul mu jaad la. di xat sami uh-huh. maanaam baatin bi ci nekk da da dafa yéeme. dafa yéeme. ci haad yi. Uh-huh. ak waduud nga xam ni kon ci la lépp di sottee. ndax nit ku nekk ci àdduna mbir mu jub ngay sàkk. mbir mu jub képp koo jëflante bëgg nga mu bëgg la mhm. ndax maanaam bu seeni kàddu dëppoo rek waaw la nga bëgg am mhm. te loolu mënta am li fekk waddu al waddu am waaw mhm. moo tax kon ku am ku wad al waddu nekk ci yow ba nag ak xudan nekk ci say mbir foo fëgg rek mu ubbiku mu ubbeeku waaw dégg sëriñ bi leeral ko ci surtout mu jaajale mu ni nga dégg mu leeral ko nga jël haadi vela waddoodu di 20. Mhm. boo ko boolee 40 lay doon. 40 mhm. multiplié par 12. Mhm. da lay jox 480. di tolloo xat sami allahu. mbaa yëg ngeen yàlla dégg na la. dëgg dëgg dégg sax. waaw. di saar yu suratul mujaadala. suratul mujaadala. boo ko jëlee xat sami allahu ba ulaayka xisbullah ala inna xisbullah al muflixuuna. 22 aaya la. waaw 2 nga tegaat ci 2 4 lay doon. 40 yi ñëwaat. waaw. ba nag moom jëmmi saar yëpp. 40 hmm. ismu zaati la am. 40 hmm. allah. non loolu day yéeme 40 40 yi mooy mooy mooy problème. Hmm. yàlla ne yow mi jàpp haadi ak wadudu xisbullah ci man nga bokk. waaw voilà te alaa inna xisballaahi humul muflihun ñi féete ak man moom kanam rek lañ. waaw ñuy féete saa su ne. waaw kon maanaam maanaam yàlla xam na ne yéeme na daal. sëñ Xaarim 480. <laughs> dindi sero bi. 48 moo ci des. du 48. Mm. léegi kon ñaari lettre 8 ak 4. waaw boo ci defee 4 ñaata la. 8 boo ci tegee 4. 84 mm. lay doon. déedéet. 12. 8 <laughs> ah, le plus 4. waaw dama la woon midi par 12. mu jox la 480. 480 waaw léegi dindiwaat naa zéro bi. damay dellu cosaan léegi 4 ak 8 a fi ne léegi jëlal 8 teg fee jël 4 teg fee xam nga séparé wu noonu léegi 4 plus 8. ci boppam kooku multiplié rek. 12 taxawaat waaye yi sérieux yi doy na waar. est-ce que est-ce que. te 12 moom 12 loo ko am mu doy moom. ah 12 fi lañ fi yem di. 13 kay dégg googu ci benn paquet. ah paquet bi douze heures rek lay mën a doon su ko manqué na la waaj fay su manqué douze soo payé douze fayal waaj douze heures la gaa yi douze heures de temps douze heures de temps suba gi douze heures de temps guddi gi boole leen vingt quatre gis nga ko noonu ah fi ne 40 même yonent yi salaa salaam pour ñu yónni leen foog ñu matal dañu wax ni nit ñetti vingt la weebu jëkk bi mhm. da nga ciy jàng judd ci jàng ci. vingt ans. we bi ci des. liggéey ko. we bi ci des lekkal li nga doon liggéey. nag ba am quarante quelque cent doo ko jàngi métier. sëñ bi yow doo bari le. daal ko jàngi xam-xam. doo yaatu le de. jàng kay day fekk ci biir vingt ans yi. lu ci topp baax na. su ko xasee passé bala nga am quarante ans nekkal fonction di liggéey. ba sa quarante ans matee. commencé nga am loo dundi nag boo mun moom ñàkk nga ponkalum jëm bu demee ba am ñeent fukkat mm-hmm. te kum dàq nga raw mm-hmm. ku ko dàq jot ko du faj gàcc dégg dégg ma la wax de mm-hmm. te loo ko dàq loo loola raw ko ko dàq jàpp ko kooku du faj gàcc bu kenn ndax digg doole foofu la yem lu ci xas dool da ngay da ngay balancé wu jëmaat suuf waaye du jëm kaw kon saar waa nga xat sami allah di 22. Mm-hmm. nga boole 2 ak 2. Mm-hmm. mu jox la 4. Mm-hmm. nga boole ñaari tur mu jox la 40. nga dugg xat sami allah mu jox la 480. 480 dindi saro bi. mu jox la 8 ak 4. 8 ak 4 boo mu jox la 12. 12 yooyu boo ko dem multiplier ci par 40 mu jox la 480. nga dugg ci biir saar wi yëpp 40 allah la. sëñ bi kéemaan a ngi noonu. ودود كل أبعاد بالود واقعي ولتحمني عن ضرر وكد بارك الله ودود ودني بالانتهاء بالأمن والبسر وبالدهر أكسا كون بوكي باتاي نيغي سين émission waxtaanu diine ànd ak sëriñ ci tur yàlla wu tedd woowu di yaa haadi ak yaa waduudu te seen saar wu tedd wu màgg woowu di surtout mu jaaja la ñaari nga lepp lu sëriñ bi leeral rek dafay wat ci bi sar bobu di xat sami am laahu oh. yaakaar naa dégg ngeen leeral yu yaat yi nga xamni ni oh. sëriñ bi leeral na oh. mu lambo ay njëriñ yo xamni dina doy sëkk ci ko bëgg jëriñu aduna ak akhirah ci mbolam sey mbir yëpp nak ta moy hadi ak wadud mu joxe ci nag bu tedd bu mag bo xamni day delu wat ci bopam te moy baadu xat sami allah di 480 nga xamni kep koy zakar ci lim bobu ya hadi ya wadulu day melni ni ngi ci nopp suñ borom diko de déy li li koy wax mu koy deg deg nga gëna kawé te ci nopp ci saase bo noppé mu defal la la nga la nga bëgg mo xam yow goor gi bëgg soxna jigen bi bëgg borom kër ba ci yow mi nek ci sey sax te bëgg jubóog ak deggu ak nga nekkal jàppal ci haadi yawudul mhm. sëriñ bi it joxe na ci secret ci ñi nga xam ne dañuy ñaan mhm. wala ku ko mën a defal sa bopp rek sax mhm. ci boo bindee saar yi ba mu jeex 40 allah ñoo ci nekk nga ubbi as saxeer googu noonu yëpp nga ubbi ko def ci sa tur bu dee góor mu def ci as zawjatu bu dee jigéen mu def ci as zawju boole koog maanaam chiffre 40 as zawjatu mooy lu mooy fi lu muy firi lan mooy soxna waaw kay dañ ko wax ci wolof. waaw as-zawjatu mooy mooy mooy soxna. Hmm. bu dee bu dee bu dee góor az-zawjatu lay lay def. Hmm. mooy doon soxna. Hmm. bu dee góor bu dee bu dee bu fekkee jigéen mooy sàkku mu def az-zawju az-zawju. maanaam yàlla maa ngi lay ñaan borom kër. borom kër loolu ngay bind. waaw ah, def naa noonu moo gën a a. waaw wala maa ngi lay ñaan soxna. maa ngi lay ñaan soxna. célibataire yi gars yi. ñu bëgg a nooleel. waaw. <laughs> waaw kon kon kon kon dégg ngeen ko assistance bi ñi nga xam ne ay célibataire lañ. dégg nga. ak ñi ñi ñi ñi ñi déglu ñëpp rek nga xam ni boo ko defee nee nag jëfandikoo ko def ko saafara boole ko di zikkar euh, yaa haadi yaa waduud yaa haadi yaa waduud ci 480 suñu borom dana la may soxna bu dee góor bu dee jigéen yàlla dana ko may jëkkër te it la ngay am ci melokaan ak ku la mën a yor ak ku la yërëm ak ci déggoog lépp insha allah rabbi mhm. muy yaa haadi mhm, te loolu benn bunt la ci rek mhm. képp ku koy sikkar ci sa wàllu liggéey noonu suñu borom dana ci yëkkati ba noppi danay ubbi bu dee ku wut ay këyit it suñu borom da koy jàpp ndal bu dee ku bëgg ku bëgg tukki yàlla da koy jàpp ndal ba ci kuy képp ko suñu borom gindi ci mbir ba noppi def ci sa kàddu dëppoo li ngay jëflanteel boo ko doon xëccoo bu di di di di ci jot dëgg la ndax yooyu rek moo ci nekk mhm. walaay xisbulaa daal sëñ bi wax na ko alaa ana xisbulaa al muflihun te moo tëj saar bi kon koo ko jàpp ci kanam rek nga jëm xam nga booy seetlu xawlata mhm. problème wu sëy la amone la amone hmm ndax borom kërëm hmm daf ko sopp ci hmm nu nekk ci biir public. soxla sa yàlla da ko may taar. mo am nu mu defé soxnaam ci ci biir mbolo mi waji xel mi nekk ci mom hmm mu alu fofu dal di bëgg songu soxna ci biir mbolo mi daa bëgg a hmm soxna ci nekkoon ne ko fi da aminit nit li ma lay dagan dagan dagan duma ko fi nangoo may may ban dem kër ga xam naa daa wala kooka ñu xëccu waji gis bopam ne ko wat na ci yalla so nangul lu jëflenti fi ma yow ndax sama yaram tang na legi legi legi legi ci bir nit ñi wàcc la su ma la ba wax ji bare mun ko su ma la na matee xam mun ko na dem ba kër ga mun ko dem ba kër ga xam nga naa mel ni as gaaw a mer fii laa ko soxla ba mu koy wax waa jaa ngi téye géño gi boole ko di yoxoñ ba di xonq fii lañ koy defe mënta ne mun ko kon su ma la nar xam yàlla xam sama yaay foofu la giñ ci sa yaay nurale ko sa soxna araame suñ borom ni kon na la yar yow mu góor mi wax loolu ba dootoo ko waxati waaye soxna si moom ku bëgg boroom këram la. xam na ne li ak action bi waa ji def bëgguma sama boroom kër bëgg a tax mu def ko. mu ñëw seet Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam yonent bi ni ko kii de daa giñ ci way juram ni su ma ko nungulul lii yàlla na bu boo narate ànd ak man ànd ak yaayam te ay li yéwén sama jëkkër laa bëgg te problème amna na laj solution yow rasulullah alayhi salatu wasalaam yonent bi ko comme da wax ni bu la té xam xam yaayam di alcorane wax moy sey bi yakuna na mënut leen a ànd bi sal ndaw ci di baganté diggante rasoulallah jëkër ji té mi ngi bot doom di tap tapal ba né ba def ko ben yoon ñaar yent bi insister ci ni ko sey bi la am yakuna na dem ba bir kërëm xelam xalaat mu ne am na ko supérieur rasulullah am na ko supérieur di ngeen di tudde chef supérieur mu ne yonent bi am na ko ki ko yónni laay waxal tàllal ay ñaari loxoom sukk bottoom ni yàlla sama borom kër laa bëgg te daa juum mooy wa tastaki ilallah wa tastaki ilallahi di jàmbat jëm ci yàlla bàyyi fi yonent bi doon waxal suñ borom nangul ko ñaanam ne ko bunt la boo xam ne dama ko kode woon mm-hmm. waaye di nga tax yow ma de ko de ko léegi mm-hmm. sa jëkkër am na jaam mu ni dënd bayàgg ne ko ay léewén amu mu ne ko soo moon jaam de mom yef yoma rek le waw ndax mom man na man na wor ñaari wër tuubi ko ma jéggal ko mu ne ko as bi ma gis genn bëccëg gu mu añul képp attundu ko na bëgg lek en tout cas moom nag neexut a dimbali su ma doon biiram ñaari wër ma dimbali ko solution yi la lay wax yobiko def kon luy pexé mu ko su yoré dara ci alal na ko joxe juróom benn fukki nit yoo xam ne ñu dañoo xiif mu añal leen ñu ko boobu mën naa yomb ndax sama borom kër am na tool fii te jaral naa ko jaay tool bi jox ko ñooñu mu ne ko su ko defee ma dagalaatal diggante bi kon solution yi ku waat ci loolu na nga xam ni léeg-léeg juróom benn fukki nit mbaa woor ñaari weer mbaa goreel ab jaam moo doon sart bi te léegi yomb na sëñ bi. Mhm. nit day mer rek. Eh, gars yi dañuy dañuy waat rek di wax lu kenn xamut wàcc naa la fukki yoon ak juróom benn fukki yoon ak ñetti yoon ak ba noppee naan kenn fekke wu koog maa yow képp fa nekkoon ak awul ah, seede wàcc na ci yar seede <laughs> sëñ bi bu dee dëgg la ci yow mën ngaa foog téléphone ni ko wàcc naa la mu dëgg nga xam ne du du ko waxati waaye ngeen ko mënee arrangé ngeen arrangé ko rek moom ngay dégg gars yi di ko wax <laughs> laa joxoon wàcc naa ko ñetti yoon waaye ngeen ko mënee arrangé ngeen arrangé ko <laughs> xam naa ñuy Amérique lañ nekk wala France hmm? loolu wax jibril lay ni cipp ci kanam rasulullah sallallahu alaihi wasallam yonte ni bëri ni ko jibril dawo fi ñewi ni so da ñew da nga yeglu ma xam yaang ci yoon ba noppi da nga dan masla way da nga ni cipp ni ma yalla neena lu mu wax mu ni kon ndaw si fi ñewon don la jambat birum jëkkam su borom neena tepp na la ndax way ndaw si kat rombu na la fi ñew ci mom te man du ma tas yaakaar delloo ko jëkkeri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 ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم لا إله إلا الله معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم صدق الأولاسي برام بنينا كان كيين من ما لقط لقط باو كان دنگا يالا نينا بايل بغايت دنگا جوك لولف غيسناكو خوما ما موم واخ جي خوما ياكو خوما تامسيركو مون ah yor ba xam gaa yi nelaw noonu noonu nee nga jóg suñu borom ne maa ngi leen xot di la xool ah eh, yëm ma ji yëm gis gi ma la gis waaye intention bi nga am Moustapha yàlla neen xam naa ko la sama wat maa fi la art wax jii ma wax nag yemale ma ko waa suuf yemale ma ko waa asamaan ñoom laa wax fu fi waaye nekk boo jógee guddi gis naa la la nga nar def xam naa ko ngeen déet waaye yàlla mm-hmm. mu ne am na lu gën a garaaw loolu foofu ñaar nekk di déyante mm-hmm. seen diggante ñaari gémmiñ ya gémmiñu waaj yi ak nopp waaj yi muy déy mm-hmm. suñ borom nee na maa ngi ci diggante gémmiñu waaj ak nopp ci nga xam ne romb wax ji day romb ci waaw day nopp bu yàlla loo ko yàlla nopp waaj xam nga da bëgg a déyante waaj nit ñi nopp bi suñu borom ne fa potox boppam nga xam ne message bi di jëkk dugg ci noppam génn doog a ci nopp ka kon lu ngeen wax ngeen ko xam de ñaar ñu ne maa leen ñetteel su fekkee fexe ngeen ba doon ñett ma nekk ahum. quatrième illahu wa rabi'ahum soo fexee ba doon ñeent maa leen Illahu wala xamsatin te lii mu wax ni lu ci ne daa amoon ci jamono bi wax ba noppi ñaari gaa yi suñu borom ñetteel leen ñett taxaw fee mu ñeent mu taxaw ba bi yonent bi ba ñi taxaw ñett ñi fe ñu ne ñen ñett la mu ne mu ne yàlla fekk na ko ñooñu sukk ci suuf ni tuub nañ ko. ana ñaari ñëwoon fii mu ne am ñetteel nga xam ne groupe bu defal nekkoon na nombre ba tolloon du yéen rasulaay di woo ñoom ñoom la woo. ba tey jii mooy dox. Mm-hmm. loo def yàlla xam na ko. même bu gënee néew ñaar. doon kenn. kon yow képp la wax. mbaa yëg nga ni am nga ci am na ci <laughs> am na infraction yoo xam ne ki koy def moom dong lay doon. kii di teg sa bopp maanaam di sa sa intention. sa nga sa biir néeg di masturbé yow képp. nga xam ne kenn fekkewu ko. suñ borom foofu photo yow teg nee. waaw yaakaar loo yow. wala at naa min. min saalis mooy kenn ki. nga xam ne mel na yow képp yaa wéet. di def sa mbir yoo xam ne jàpp nga ne kenn yëgu ko suñ borom nee na yow un man deux. nga napp nag sol sa mbubb di faaxar faaxar di faaxar faaxar nag te foo jëm kan mu topp la ba ne ba toog ba naan gars yi ni ngeen jub suñu borom fëggale naa sa waaye da nga fàtte sa bopp sa conscience totale moo lay fàttali ni yow gën a nafiq yëpp yow ba daane koy waare yenn saa yi mu dem ba yàgg mu ne ay ma ah kooku la bu la gars yi xamoon wala na min salika wala ak sar su fekkee mbooloo mee tax nga ñëwee wax li nga bëgg a wax suñ borom ci biir mu bari mi yow moom détecté naa la yow. am ba ne ku taxaw mbooloo wër ko. nga xam ne doo ko teesu ba mu ba mu jaawale la. déedéet. gars yi duñ la favoriser ba ba tax. noo mën a def lu ne. yàllaay buur. damay leen benn documentaire ci suba. Mm-hmm. président bi ñu coup d'état. Mm-hmm. yàlla ko yàlla yokku wér. Mm-hmm. kon de waaw. li ñu tuddee cancer prostate prostate ndekete moom la am. xam nga moo sol tubayam mhm. yor ay ak garde corps mhm. di toog ci photo yam mhm. nekk ca la ca suuf yàlla xam na la xew maanaam nga xam ne coup d'état bi sens la ci moom ndax mënatul woon a toog di tenir ay yëfam biir documentaire ma topp ko ndekete Mobutu président de la république bi nekkoon waa dictateur loolu ko rey bi ko gaa yi seete ba xam ne ko ne loolu nga am te mënut a faju ci lañ def seen conneries yi ñu def nii ba dugal coup d'état bi pour ñu wan dañ ko coup d'état ndekete wa am seew la ci ngir mu rëcc waaw président de la république buy traversé yoon ko romb mu daaneel la ku wax loo war tax ñu ne offense de offense de président la sëñ bi ku mars mu tëj la kon nanga mu def la ko bala moo lekk nga lekk ba xam lekk gi wër na waaw suñu borom bàyyi ko ba mu toog ca bureau ñu climatisé ko ay garde corps mu wër ko mu jaar ca suuf fa mu toog dafa ko prostate cancer nga xam ne menn moom képp mooy xam ne lii ma dal di ñuut ñuute fi mu toog moom wala ak sar min ak li mu wër ci mission yi xereñ ak li mu waaw yàlla romb fi ñëpp ñu ne ci kaw ñu mu doon tëj ci kaso yi prison prison bi teg ko loo xam ne moom mu dem prison ko gënal lii ko dal xoolal ma loolu maanaam buur yi réew yi fi ne maanaam feebar yi ñu yor mm-hmm. ana ana ana bi nekk Gabon mm-hmm. kañ la handicapé woon. di yor ab te yilif gaboo gépp yéen gañoo naa gaba maa ngi leen di siyaar den den ñaanal yàlla jàmm te di ko ñaanal mu wér. yàlla képp ko mënal loolu. ku ko mos a contre ko. dal ci kawam te mënu koo faj. ay na Mouhamadul Khadafi. colonel bi. fu mujj. ku suuf si moom. yàllaa ngi noonu loolu la mel. ana Saddam Hussein. ponkal yooyu nga xam ni suñu borom day bàyyi ba ñëpp dem seen kër gàttal ko ba nga tëdd sa néeg mu fekk la fa roof la benn affaire bu ndaw balaa la ngay ñut ñu teg moom naan fu may jógee kooko yàlla kon su su ñaari wéetee maa leen ñetteel xam leen li ngeen def su ñetti wéetee ñeenteel xam leen li ngeen def su ñeenti wéetee maa leen juróomeel même bu gënee néew nombre bi même bu gënee bari ku ci nekk dinaa la naa ne rucceet pikir la benn pikir maa yow képp ñoo koy xam su ma la jàppee dootoo rëcc de bi xoolal loolu koku moy borom tabaraka wa taala ok mom la sar yu di nit li ni lutax nak fu ñaar nek diko def ma ñettel len moy bo wéetoon yow kep di sikar ya hadi ya waduud ya hadi yow yow kep suñ borom nee lay ñaarel bo sikaree ba taf sa gemeñ ma top la heure par heure jour par jour ba muy deug ci yow mo ubi buntu bi ne gaay yi ngi de ci wala waaw yalla xey xey ne gaay ci biti mm-hmm. yéen di wut secret bëgg a egg ci yàlla bëgg am xaalis bëgg am nangam waaye doon tëju ci biir néeg bi ko yor secret bi koo ñaanal aajoom faju yaa haadi loolu de caméra surveillance war koo jàngal waaw mu ngi noonu caméra ko da koy jàngale fii ne li ñuy waxtaan nii xam ne ñun nekk ñoo fi ne suñu paree léegi adduna bépp jot ko loo wéet wéet di tudd yàlla boo noppee suñu borom feeñal la mm-hmm. loo wéet wéet di mooy yàlla boo noppee suñu borom feeñal la wala mm-hmm. loolu mm-hmm. gis nga saar wi ñaar fukki aaya la ak ñaar faaye jeexa fu nekk ba jëlal ñaari tur yi def ko fa maanaam boo defoon yaa haadi dangay def xaadim rasool yaa wadoodu continue si ti ti maanaam boo ko boo ko doon bind waaw ba mu nekk ñaar fukki aaya ak ñaar mm-hmm. aaya bu nekk am ñaa am ñaari tur yi mm-hmm. kon bu tur wi eggee ci tur wi di nga ci am 22 fois 2 42. 42 44. 44 fois ngay am tur yàlla wi ci biir. ak sa tur ci biir ak sa tur ci biir waaw. kii nga ko suñu xarit bis boo defoon ba def ko am xàmb di ko di ko di ko sangoo ko raayoo. <laughs> dama tëdd sa nekk. est-ce que lu gaa yi yor jox la ci. ah. <laughs> da ngay fayeeku <laughs> da ngay fayeeku par weer. te wala lu ko sax lu ko gën a gaaw. est-ce que mhm. Ibrahima. moo tax may wax na ngeen fonk tur yàlla tey si kara. yàlla du nax kenn te secret yaa ngi ci biir. Mhm. ku bëgg a bàyyi jël ko. Mhm. boo bëggee wërsëg jël ko soo bëggee ak pal jël ko soo bañoo daaneel jël ko soo baree noonu jël ko soo bëggee mucc jël ko maanaam boo ko saxoo doo torox adduna doo torox alaxira te di am bàyyi di nga am sami allah xawla lati tujadiluka fi sawjiha ba ba ngay egg ci fa yàlla wax ni ala inna hisballah humul muflihun aay bu nekk bu aay bi jeexee rek defal benn diggante yaa haadi daal di bind tur diw yaa wadoodu continuer bind beneen aaya ah imaam abdou xudo sax naa bu soo ak jàmm bind ku bëgg lu baax la yàlla ko yàlla yokk wér ak mboolem jullit yëpp tey loolu lañ leen andi doon defe naa ne mat na sëkk <laughs> mat na sëkk hmm, tëj ko doon ëpp sax ñu ne ëpp na <laughs> jërëjëf sëriñ bi kon mbokk yi seen émission waxtaanu diine mi ngi noonu ñu koy ànd ak seriñ bi ci alarba bu nekk hmm. dégg ngeen tey tur yàlla yu tedd nga xam ne moom la sëriñ bi indi muy yaa waduudu mhm. ak yaa haadi mhm. saar wi di sóorutu mu jaajale di xar samiat ndaa ko gunge ko mhm. ba saar wi jeex mboolem secret yi sëriñ bi indi mu doon secret yu wér yu yéeme yoo xam ne maanaam yow mi koy dégg rek da ngay xam ne lii wér na ndax secret dana la ko jox wala ngay laam-laami waaye dara koo jàngal tojal na ko ba mu leer fu mu génne lu muy fir lu mu jàpp ak maanaam ni mu amee connexion ak aay yi mhm. ni mu amee connexion ak turu turu turu yàlla yi nga xam ni mooy mooy ismu zaati mhm. kon képp koo xam ne jëfandikoo nga ko ni ko sëriñ bi waxee mhm. diñ ci gis tawfeex bu baax a baax a baax a baax kon amatul lenn loo xam moom moom moom lañ ciy doon lu dul sëriñ bi di la sant te di la gërëm te dina la ñaanal bu baax a baax a baax suñ boroom yokk la saw fan amiin te doon la wér te gën a leeral dënd bi defal la xéwal du jeex nga yag fi loolu ndax yow mom sax yag njariñ la sax yag njariñ la ñi jàkkaaroog sa jëm jëratal di di jàkkaaroog yow manam ñi ñi ñi jariñ ci yow te gisuñu la sax ñoo ñi mo ñoo téméré junni yoon à travers émission yi ngay def ni te loolu mom yalla suñu borom rek mo am sa fay kon buñ def ñu ñaanal la nga yag fi ci kon as émission bi day day day day jeex fofu ba beneen mercredi insha allah rabbi ñu ñëw ci seen émission waxtaanu diine ci beneen turu yàlla wala yeneen i mbir ci kàttanu suñu borom insha allah jërëjëf sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu inna nashaluka min kulli hammin farjan wa min kulli dixin maxraja wa min kulli usrin yusra wa min kulli faayisatin sutra wa ala kulli xayrin sabila برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين بارك الله بارك الله